amal mu ne ko ariftuka muzayjan suma bi omar ibnul xataab suma bi omarul faaruq suma bi amirul muminina dama laa xam ci ñeenti étape yoo dund balaa ngaa tuub musiba wu ne def nga ko fi naan nga fi sàngara rey nga fi nit xeex nga fi yeneen tibi nangu nga fi tooli jàmbur ñu naan moytu leen omar a ngi ñëw fu mbedd moo dugg nit ñi daw ba tey yàlla dafa la sutura nga ne yay tuub nga dugg ci diine l'islam ñu lay wax alfaaruq yaay tàqale dëgg ak fent li nit ñi wax yonent bi jógee fi kër jógee fi ñu tuddee la buuru jullit yi muy ñeenti étape nga dund ko te xaw ma bu yàlla nangu moo tax ma ne tës bu ñu kenn damm lii laa wax kon munu ci dara Omar dafa ne bëreet ci suuf toog pour wax la nangu dëgg na allahuma imanan ka imanil ajais muy man mansuubun bi nafil bi nasil xaafidi yàlla yàlla na nga ñu may ngëm gu mat sëkk ba jigéen xale dof ku ñu romb ci mbedd mi bu ñu waxee dëgg ñu nangu ko bari na koo xam ne bu tee rajo bu waxee ku ne di rappi rappi ndax dëgg yi muy te boo ko waxee dëgg benn yoon mu bala waaw moo tax li ëppal solo yàlla du kàddu wax gi ci bopp mais bu bu la dëgg dabee nga taxaw xam ne tey nag kalimatul xaq moo am moo taxaw tey dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa nangu dëggu yàlla gi te dafa jafe ci bile jamono surtout ci kilifa gu nangu ku lay wax dëgg surtout kilifa gu nekk au pouvoir ñi nekk au pouvoir ñoo war a gën a teey parce que la li ëpp ci ñi leen di wax duñ leen wax li am kon di bàyyi xel ñiy wax dëgg ak ñi dul wax dëgg nga di ci bàyyi xel tey te jël yàlla jël alquran gis nga nag suñu problème mooy ba ñàkkoo déglu alquran alquran rek moo mën a defar nit damay wax ma ne àdduna bi crise yi ñuy wax ak yépp du du du lu dul dañoo dellu ci ñaar alquran ak njàngale yonent bi la budda an narja bi kitaabillahi wa bi sunnati rasul sallallahu alayhi wa ñu ne waaw lan mooy dëgg lan nag dëgg lan mooy safaanam ñu ne safaanu dëgg mooy wax lu dul gannaaw dëgg xam naa baat bi di ko utiliser rafetul ci ku toog ak ay mag mooy li ñuy tuddee al fen fen al kasibu ñu ne fen maanaahu muxaalafatul xabari lil waaqee ñàkk wax dëgg mooy koo xam ne toujours li muy wax ak lii am du dëgg du nekk luy luy dëppoo te yàlla waxoon na ne ñaara ngi du ñu am ndam ba ilaa yawmi diin ca sóoratu xaafiri aaya 28 boo fa demee daa fekk li may wax yàlla na ñaar a ngi du ñu am ndam ba àdduna tukki lu ñu def njuumte lay doon ñaar a ngi ñu am ndam ba àdduna tukki te lu ñu def njuumte lay doon ñu ne yàlla ñaan yooyu ñan la mu ne inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab yàqkat mën a puugarewu ci sa ay mbokk tiitaru jaay affaire nit ñi maa toll nii maay directeur maay doomu diw maay nii maay naa mu ne ku ko jikkowoo loo def erreur la ak ban mu ne koo xam ne lu mu wax buñ ko toppee mu ci gannaaw dëgg te yonent bi salaay salaam wax na benn wax boo xam ne loolu war na tax ku ne jéem a dëggu dane kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma samia mu ne doy na gàcce as cam doy na toroxte as cam doy na dellu ginnaaw as cam ñu ne yaakaar ne lu ne lay wax mu ne ca as cam soo xam ne lu mu dégg nettali waa dégg ngeen wax bi xamuloo ne même nettali waxu jàmbur te santul la ko fen la <laughs> directeur tey da ñëw na ca conférence fa la toog ba mu tas directeur la wax nga waxal ko ne fa la toog ba mu tas fen la da doon wut si yàlla ku la ko nettaliloo <laughs> waa daayira ba eh tey de sañ sene tey de niroole bañ de ah waa moom de jigéen ña tey de ah, wax dëgg yàlla ku la ko waxloo yii yëpp yu sew la yàlla da koy comptabiliser lépp loo wax te kenn laaju la ko te borom sant la ko rek fen la waaw yonent mu a doy na teraanga doy na toroxte doy na dellu ginnaaw koo xam ne lu mu xam rek toog moom mënta muñ ñàkk koo wax la mënta muñ dañuy nettalee nettal ba duñ dañuy ñëw ne la <laughs> président <laughs> naa de <laughs> yéen yi gars yi li ñu wax gars yi dañu ngi débattre rek yenn gars yi waxuñ loo wax booy génn mu ne professeur dama wax booy ŋaang rek yow la bëgg nga ne rek ah waaw waaw dégg naa ko démb mu génn professeur neen dégg na ko te yonent mi nee na li gën a gaaw maanaam bu fekkoon ne ñàkk wax dëgg dëkk la mu ne oto bi la ciy yóbbu benn la ñàkk wax dëgg su fekkee ne dëkk dëkk la bu ñuy dem benn oto la ciy yóbbu mu ne ñaaw njott moo tax yonent wax iyaakum wa danni fa inna danna akzabul xadis alquran wax inna danna inna baada danni ismun wala tajassasu wala yaxtab baadukum baada ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma aqihi mayitan fa karihtumoo kon ngeen gis ne ñàkk wax dëgg bari na jëw ci la ñàkk wax dëgg bari na rambaaj ci la ñàkk dëgg wax dëgg bari na wor ci la te inna allaha laa yahdi kaydal xaa'iniin ñu ne nag ñàkk wax dëgg dafa am ay daraja walil kasbi darajaatun baaduha ashaddu isman dafa am ñàkk wax dëgg goo xam ne borom ci boppam la ko jëmee mbaa dégg ngeen wax bi kii ñàkk wax dëgg ngir boppam <laughs> kooku mooy jaaxaan di saw ñëpp toog di waxtaan rek nga ne ba ma demee France te mosoo dem Pout xamoo fu Pout fe non vol bi dafa gaaw France bi non même pas kii sax non Paris dafa sedd nag il était très froid bëgg rek ñëpp milieu bee ko laaj rek nga wax rek ñëpp rek pour tiitaru <laughs> mooy jaaxaan di sax te dafa bari puugarewu rek pour ñëpp wax rek nga wax dem jënd sa kile euh, benn lam yooyu di jar kile plaque yooyu rek nga non ki or la six cent mille laa ko jënd sa morom yëpp a takku or rek nga bëgg a tiitaru sa bopp ngay nax mooy alkasbu ala nafsik li tafaxuri mu am fen boo xam ne ala aadaika booboo gën a garaaw bi ngay ñàkk a wax dëgg li la tax di ñàkk a wax dëgg nit ki nga nit kee la seene nit kee la neexul nga bëgg nag foo yendu di dem du fa rafet dafay am nit ku la moo tax ku njaboote war a tey parce que ñi nga njaboote daf ci am ñoo xam dafa am ñu leen dul neex nit nag bu la neexul daraam saful la noo mën a def wax ci kilifaam lu war a tax mu bako di nga ko wax te loolu lu jar a bàyyi xel la ay nit fu ñu dajee am ñu gisee nii am ñu gisee nii yàlla mënta boole ñëpp ñu ñu ànd ca yonent ba ba fii may wax ak yow sayiduna muhammad alayhi salatu wasalaam wa yajibu al imsaaku fi ma sajara baynahum jaadul ma di ko nettali mais histoire kër yonent bi yegg na ci benn bis benn bëccëg sayidna sayidna osmaan ibnu affaanin ñu tuumaal ko tuuma bu rëy osmaan bi ñu koy rey ñeenti fan la teg la di woor mënta dog xanaa di ngeen ma dimbale guuxu ndox mu ma naan ñu ne ko kenn du la ko jox te nit ñi ko ko def ay jullit la mu continuer wooraat ba suba ga amul tàndarma amul guuxu ndox ca suba ko mu waaraat ginnaaw suba ko mu waaraat ba ca ginnaawaat suba ko ca booru 2 heures 3 heures du matin lañ ko tër rendi ko ci benn fen wuñ ko fenal kon fen yàq na tas àdduna bi irhamu min ummati arbaatu sama xeet ku yërëm yërëmal ñeent bul bu yërëm ki yelwaan bul yërëm ki amul fu mu tëdd boo yërëm bul yërëm ki amul liggéey yonente ne na sama xeet boo yërëm ñeent ngay yërëm ñeenti ñoo ñan la mun a azizu qawmin zalla ki yàlla may mu tedd ci aw nit ba ñépp yëkkati ko mu xëy torox te la tax mu torox moo ko def yonent bi nee na kuy yërëm yërëmal kii ci sama xeet ak kan mun a waxa ni yu qawmin iftaxara ki yàlla may wërsëg ay bokkam mu war leen a dimbale di tiitaru ba xëy ñàkk te amul fu mu jëm kuy yërëm yërëmal ak kan mun a wa aliman bayna juhaalin ki jàng ba fees dell li mu jàng mu bëgg ko jëfandikoo dëkk ak ay noon yu xamul dara ñu ne ko du fi lal ak kat mu ne ki nga xam ne nu wax ñu ne xanaa du diw boo xam ne jarul dóor sa doom yoon bi ne ñeent ñi ku mu dal yërëm leen ko te booboo bari nag boo dee dund ci jamono bañ ne xanaa du waxi diw <laughs> waay waay kooku day diw de bul ne Pikine ma nga tëngee te nag bari na ci jamono yonent yàlla daawuda bi muy waaj nelaw dafa woo doom yi ba mu ñëw mu ne maa ngi leen di dénk ñett baleen ci seen xel bu leen dalee gaaw leen dee seen dund bi dee ko gën bi ci njëkk mooy riqatu diini bu ngeen demee ba ñàkk diine ba lu ñuy wax ci diine duñ leen ci boole kenn du woote diine xel dal la ku mu daj xel dal daj la ku mu dal deeyal sa dund gi dee ko gën ndax fii ku fi tu fi tedd ëllëg yomal am diine la teral man papa mu ne leen ixtilaaful ixwaani ku yàlla booleeg ay nit ngay dund ak ñoom juboo kenn ba ñëpp di la moytu sa dund gi dee ko gën ñetteel bi ban la mun leen doo ful àqali koo xam ne bu ñuy wax farata bu ñu la séenee ngay ñëw ñu ne noppi leen de Alioune Diagne la de moo fi dàq wax waaye lu mu dégg mu def mu ne ñett yi benn bu la ci dal sa dund gi dee ko gën yonti yàlla daawuda moom yàlla neen awxa allahu ila daawuda yaa daawuda ee yow xanaa xamuloo ne nit bu dëggoo ak man ci dë ci biir ci ci baatinam damay tàggat xol yépp bëgg ko te lu ma wax ñu gëm ko waaye nit bu dëgguwul ak man damay tàggat xol yépp ñu weddi ko lu mu wax kenn du ko gëm donte la dëgg la xamuloo nit dina mel noo xam ne dafa am benn waay boo xam ne lu mu wax du dëgg yàllaa ko ci natt dem ci benn géej ci misra ci jamono yont yàlla Muusa di sangu ci ci tefesu géej gi sangu rek mel ni koy lab lablu waay yuuxu ñu ne daw leen xeetli ko géej gaa ngi koy wan ñu dem jàpp ko indi ndeka day kaf mu defaat ko ci suba ga ñu jàpp ko ndeka day kaf mu dugg ci ginnaaw suba ga di def farlap ñu naa ah, jarul génne lii day kaf rek démb noonu la fi def barki démb yëpp ndeke dafa lap ñi di ko xool ba mu lap dee ci géej moo ko teg boppam ci la ko yàlla na toon ni nga mer rek ci la la yàllay ba moo tax sayyidna muhammadin alayhi salatu wasalaam mu ne inna sidqa imaadul lépp looy dugg kennu maanaam baas bii lu ko yenu di tibi yonent bi nee na lépp looy dugg kenn ya koy yenu moo di dëgg waaye wa bihi tamaamuhu lépp looy dugg bëgg mu dugal ci dëggu loo dëggu di nga ca am la nga ca bëgg mu ne wa bihi nizaamuhu looy organiser te boole woo ci dëgg du dem loo dajale nit ñi kon réunion suba réunion guddi réunion ngoor suñu waxantewul dëgg rek du dem moom daal nee na as sidqu imaadul umuur yi wa bihi tamaamul umuuri wa fihi nizaamul umuuri moo mën a organiser dund nit ki mu mat ci nga mën a wéeru li ngay doxal mat te lépp loo duggee duggee ci dëgg bu ci ñëpp jàppee mu yegg bu ci ñëpp jàppal mu yegg ñu ne nag nit ñi ni ñu wuutee noonu la seen ñàkk wax dëgg wuutee ñu ne yaxtalifu alkasibu bi ixtilaafi naasi boroom xam-xam bu dul wax dëgg xam ngeen lu ko yàlla di nattoo xirmaanul kalaam yàlla da koy nattoo mu jàng ba na xar waaye lu mu wax kenn du ko dëgg foo fekk boroom xam-xam bu dul wax dëgg yàlla da koy nattoo xam bu nit mënta jëriñoo ñu ne borom wërsëg bu dul dëx dëgg yàlla da koy nattoo xirmaanul barakati fii maalihi barke alalam du am barke te buy dee du deewaale wërsëg foo fekk borom wërsëg wuy fen yàlla dina ko nattoo li ñu ne kasbun lil faqiri ki amul dara te yàlla nattoo ko ñàkk wax dëgg lan mooy inconvénient bi ñu ne tasdidul faqri nit bu ñàkkee yàlla na toog ko du wax dëgg bis buy xëy di di ñàkk boo amee problème mu 1000 francs te doo wax dëgg bu subaa da ngay am problème mu 500 bu ginnaaw subaa nga am problème mu 300 ginnawaat suba nga am problème mu 200 ginnawaat suba nga am problème mu 50 francs ginnawaat suba nga am problème mu 10 francs ginnawaat suba nga amaat problème mu 0 francs bis booy xëy taux bi di di wàcc nit ku du wax dëgg nii la ko yàllay def ñu lan la ko yàlla nattoo ay waay jaaykat yi ni ma bëggee ñu déglu ma voilà voilà ñu ne ki yàlla góor gi yàlla nattoo mu nekk ci biir néegu sëyam te du wax dëgg lan la ko yàlla di nattoo ñu ne yàlla da koy nattoo jabaram du ko déggal si yaa ngi déggoon sa jabar lu mën a xew wax ko dëgg borom kër gu dul wax dëgg yàlla da koy nattoo njaboot ga duñ ko déggal ñu ne jigéen ju ne ci biir néegu sëy nag te du wax dëgg lan mooy inconvénient bi ñu ne jigéen ju ne ci biir néegu sëy te du wax dëgg yàlla ñaar la koy nattoo moom it du am ngërëmal jëkkëram du am doom ju baax ñu ne wëlli bu dul wax dëgg lan mooy inconvénient bi ñu ne wëlli yu bu jaamu yàlla ba yàlla may ko garaat mu ëpp xëy bëgg nit ñi gëm koy mbaa ñi topp koy mbaa nit ñi ba tax du dëgg yàlla da koy war nattoo taxfiiful maqaamaat day xëy ñu sippi maqaama yi ko ajoon yépp mu yem ak ñépp zéro ñu ne kàccoor bu dul wax dëgg fenkat kàccoor bu dul wax dëgg maanaam njaalokat naankatu sàngara jëwkat nangam nang eh, eh, eh, Pape Alsane Diagne man maa ngi tiitee ci ñàkk wax dëgg keroog ba mu ba ma jàngee ci ci mbindu Cheikh Hadj Malick mu ne ashaddu wa adne min talathina zunyatin la dal baadi fi l islami wa saa salibu Hadj Malick ne na fanweeri njaalo nga njaaloo ko ci benn bis ak jigéen joo xam ne waroo koo takk bi maanaa sa sœur wala sa bàjjan wala sa tànt nga def ko ci benn bis faneeri njaalo moo gënal yàlla nga fen benn fen ashaddu wa adna min salaasina sunyatin fanweer da dal baadi fi lislaami wa saa ñu ne ki jubadi tey fen yàlla da koy natte alxawaayatu wa dalaala bis bu xëyee di gën di réer dundam yépp zéro day dund ba dee du am dara ñu ne ndaw lu jógtee fen xale boo xam ne ay wuy juróom dañ ko seetaan nàmpatal ko ci fet ñu naan garaawul xale la garaawul xale la yàlla da koy nattoo lu mu koy natte mu ne at taxfiifu fi aqraan yi bu màggee moroomam yépp a ko yilif du am benn responsabilité ci ay moroomam moo tax kafa bil mar i isman an yuhdisa bi kulli ma samia yonent bi alayhi nee na juróomi juróomi mbir ngi yàlla du ko def ci naafeq juróomi mbir koo ko fekk ci moom rek set na ci naafeex bi ci njëkk mooy bu diine bëgg diine comme nii ngeen def organiser wu at mu jot ngeen taxawal niroole li bëgg diine ko yonent bi nee na du bëgg diine wa tabassumu fil waj nit koo xam ne bis boo jàkkaar la moom kanam nga di leer te ni mu la koy wanee noonu la dëggoo ci xolam bari na ku lay tàpp di la ree du dëgg an ta waaw président waaye maa ngi lay ñaanal démb rek maa ngi gént ngay kii nii géntul dara <laughs> démb rek laa lay gént nii ñu naan ma da ngay tukki dem Màkka laa kii ah waaw yàlla na ko yàlla def xanaa da ngay waaj a dellu Màkk waxtaan pour wan la rek ne la am naa ci benn affection bi te waxul dëgg booy jàll mu ne moom nga <laughs> koy jaay rek nii lañ mel ñii dañoo bëgg ku leen yëkkati nitu àdduna yi nit ñi dañu faux c'est des faux types mu ne koo xam ne lu mu la wan ci karamam keroog ba mu la gën a ree keroog ba mu la gën a muuñal keroog ba mu la gën a kafal boo demee ca xol ba lu ko raw nga koy fekk kooku nit ku du ku naa fekk mënu ak ban mu ne woon nuuru fil xal bi borom xol bu set raxas ko sol ci xol leer ba rusa wax lu dul dëgg rusa iñaane jaamub yàlla ak ban mu ne wal mawaddatu fil muslimina nit koo xam ne ñi mu dëkkal ñëpp jàmm la leen ëmbal foo ko fekk borom génn na ci naafeeq ak ban mu ne wal waraw fil lisaani ki sàmm làmmiñam ba du wax safaan du nettali luñ ko nett loowul du wax loo xam ne buñ ko toppee du nekk dëgg luqmaan wa fi wilaadat wa fi aw kawnihi malakan qul innahu sadiqun tusdaq wa wa tuxtarami sa Malik kenn du moom seetet wëlli laak mu ne daal ñii naan wëlli yu la ñi naan yónent la Mawlaaji Malik ne xam ngeen lu xew xul waxal na innahu na ko moom Luqmaan nit ku yiw la woon ku yàlla nangul cër la tus daq nga wax dëgg tuxtarami wëlli yu saalix la wala de nabi saalix la mm-hmm. kon boo ca wax nga dëgg luqmaan boobu moo noon doom ji man yashabu saahiba suu ilam yuslam ku fekk ab nit ab mbàndaari ngay ànd ak moom boo bëggee wan ni ne yiw naa duñ ko gëm man yadxulu madxala suu i tam kuy dugg ci place boo xam ne ku fa dugg xeli ñaaw ci yow bu xeli ñaawee ci yow yow la waaye nag man laa yam li ko nafsahu yan dam ku moomal sa làmmiñ bisa ngi ñëw nga am gàcce goo xam ne ba ba ngay dee doo ko fàtte te yonent bi sa alayhi wasallam dafa ne ñeenti ngi du ci jullit ñeenti koo ko fekk rek koo ko fekk ci moom rek jullit la ñeent yi jullit yàlla dina fexe ba du yor ñeenti jukko yi kasratul ibadati wa kasratu tawaadui wa qillatu charri wa sidqu fi fi ma baynahum bari jaamu yàlla jullit rek ko man woyefal sa bopp ndax dama dama liir ci benn téere maam Abdoul Aziz Dabakh mu ne boo duggee ci dëkk mbaa nga dem ci réew mbaa nga dem ci pénc mbaa nga ñëw ci benn société fekk ñëpp di xëccoo mbaax ki naan maa dàq julli kii naan maa dàq woor ki naan ma dàq natt asaka kii naan maa dàq li maam Abdu ne na nga bëgg a jël pee kaay ma wax la jikko boo xam ne ku ko jikkoo foo yendu yaa fa gën ñu ne ko sëñ Abdu boobal la mun a woyof nit bu woyofee fu mu yendu gën ko gën fa ndax day jubóog ñëpp yàlla boole ko